Euh, mbokk yi ñu ngi fii nii ci euh, école Cheikh Souleymane Diouf fi nga xamante fii fi la leader Habib Niang doon voté gis nañ ko voté na ba pare def na aussi une délai euh, une déclaration mais fii contrairement aux autres centres gis nañ ni nit ñi taxuñu ko ñëw bu baax lan moo lan moo waral nii faible taux de participation bi xëy après dinañ ci am. ñu ngi fii nag ak le leader Habib Niang ñëwoon fii ak accompli li nga xamante ni mooy devoir citoyen président ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum nuyu naa leen bu baax di leen sant di leen gërëm vraiment si interview bi ngeen ma ko Euh, voté nga ba pare. waaw voté naa alhamdulilah sant yàlla voté naa si jàmm euh, donc euh, li ñu ñaan rek élection yi moom jàmma rek lay doon. jàmm ak loon parce que loolu ñoom ñaan yàlla si woon taala bu yàlla yàlla dinañ bi ci ndax bu ñu remarqué ci yenn centre yi faible participation lañ noté. non xam nga ren nag boo bëggee dëgg dëgg dëgg les vrais militants ñoo nañu voté. parce que gars ñëpp ñëw nañu depuis 7 heures du matin 8 heures du matin et puis ren élection yi li mu war a jaar jaar na yoon. les gens sont là depuis 7 heures du matin 8 heures sax man 8 heures laa parce que ay 4 heures du matin laa tëdd 8 heures du matin sax am na ñu ma woo ni ma président woote la ji nii 8 heures nañu génn suñu bureau vote ba ni ngi doon jibbi donc ñun ñu allah yàlla ni ngi xaar rek ba l'après-midi ñun tous ñu ñëw feete suñu victoire yu soobee yàlla. ñu feete suñu victoire à veut dire que ni am nga confiance. ci résultats yi on très optimiste. li may faral di wax mooy xam nga li amoon amatul parce que sensibiliser nañu jeunesse bi yëpp. informé na ne que le président Macky Sall mu ngi liggéey Macky Sall comprendre la jeunesse comprendre les personnes du troisième âge comprendre les femmes ren am na lu mu wax nee na bu yàlla defee jàmm ba élection yi jeexee jàmm salaam dina si tiré ay leçons donc moo tax la jeunesse est optimiste ñoom ñëpp am na ñu yaakaar déglu nañ ma déggal nañ ma sensibiliser naa leen waxtaan na ak ñoom. boo xoolee sax information bi may joxe mooy am na ay cadre bëri yu xam ne Thiès fii lañ dëkk fexe naa ba ñëpp tey. fajar bi ñëw démb si guddi ñibbisi nañu lu musul am ñëw cees pour voter ji pour delluwaat ni ngi koy def ñu ne ni ngi koy def ngir Habib Niang parce que convaincre ñu incha allah rabbi ay doomu Thiès nañu c' est des banquiers c' est des médecins ñii c' est des anciens militaires ñii c' est des anciens colonels retraités dëkk fii dans la zone nord dëkk dans la zone ouest dans la zone est ñu ñëpp waxtaan nañu démb si ñëpp mobiliser nañu woo nañ ma sax ni ne ma voté nañu ba pare ni ngi delluwaat incha allah noo gisee dispositif de sécurité bi nga xamante ni teg nañ ko. waaw macha allah vraiment li may saluer mooy vraiment la sécurité ñi ngi def seen liggéey comme nu mu waree bon yaakaar naa ne képp ku ñu xam ñun on est des militants très très civilisés très fidèles très loyal boo xoolee sama gars yëpp ñëw nañ si jàmm. Euh, ni ngi bàyyi gars yi gisoo boo xoolee sax si biir protocolaire bi sax am na ñoo xam ne bu ñëwoon sax ma wax sama militant man maa ne déet ku nekk ak selli leader il wax sa parce que loolu moo am mooy dëgg parce que ñi da ngay jege si ay nit da ngay gis askan man ñëpp ku ma xam ne man du ma nit du ma du ma du ma nekk du mu nekkuma ni ñu koy tuddee un politicien événementiel. Mhm. politicien bu xam ne ba événement bi événement ne lay gis man ñëpp xam nañu Thiès man fu ma neex dugg fu ma neex dox. mbet aw ma sens interdit. gëm naa sax ba ma bëggoon sax mun naa gaar sama dox mais attroupement bi laay bi moo tax moo tax ma dugg sa moto bu mu ñëwee ba fii nag incha allah rabbi am naa xam ne jàmbaar nañu vraiment ñu si femme gis nga fi ñoo xam ne feebar nañu sax ñu président Habib Niang yaa baa ngi fi ñëpp ngi fi taxaw depuis fajar ba léegi ngi taxaw maanaam yëpp li ñu yaa ñu ko jaral ba woote ni wuy la donc incha allah rabbi espoir am na bu soobee yàlla ñu amul ngi fii ci école Modou Kane ah, gis fi benn responsable boo xam dañoo gis euh, ay taxawaayam bu am solo bu muy dekk di def ci population bi nga xamante ne ñoo nekk fi moo waraloon ñu approché ko laaj ko lan moo ko indi fi ak lan mooy motivation lii nii lépp sëñ bi ñu ngi lay nuyu. soxna ñu ngi lay dalal di la fay euh, Ahmed Diouf président di mouvement vie vision intégrité et engagement waaw li tax ñu mobiliser euh, moo di dañu créer sunu mouvement benn mouvement muy mouvement vie bu mu juddee yàggul mais di def liggéey bu mucc ay biir cees rawatina biir si talame bi bi ñu dëkk li ñu motiver nag moo di defar suñu quartier defar dëkk bi ba pare jàppale le président Macky Sall ndax gis nañ ni à travers les communications yi ñuy jàllale ci jeunes yi ñu ngi leen di nax di leen manipuler dafa jot ñun jeune ni ñoom ñu jug jàllale message bi xamal leen liy dëgg ubbi seen bët xippi seen bët ñu xool lan moo nekk ci dëkk bi te lan la ñu war a def ci dëkk bi. waaw tout se passe bien alhamdulilah nit ñaa ngi ñëw ñu ngi voté jàmm mi ngi am ndax euh, centre de vote bu Modou bi pratiquement mooy centre de vote bu gën a mag biir Thiès donc euh, dañuy ñaan yàlla mayuñ ci ndam ba pare ñëpp génn en masse ndax xam nañu actuellement ñi nekk suñu ginnaaw bu ñu génnee rek voté fii dinañ fi am résultat ba nga xam ne mosuñu ko am biir euh, biir Thiès. remarque bi ñu def mooy euh, par rapport yeneen élection yi centre yi doon fees mais élection yi dañoo gis ni taux de participation bi dafa xaw faible trop. waaw sa taux de participation xaw na xaw na faible mais n'empêche ñun moom dañuy xool ci suñu côté rek dañuy fexe ba ñun ñi bokk ci ñun di ànd ak ñun ñëpp ñu mobiliser leen ñu génn ñëw voté te pour le moment loolu la ñuy loolu la ñuy def nii loolu loolu moo ci ëpp solo quoi. ginnaaw élection yi lan la seen association bi programme waaw ginnaaw élection yi ñu euh, continuité lay nekk ah. Mhm. parce que du mouvement ba nga xam ne dañu ñëw nii rek juddu pour après élection jeex ñu ñu mu disparaître non non non dafa am ay entreprise yu nekk ci biir am ay yeneen nag yeneen yeneen projet yi nga xam ni ñu ngi ñu ngi ci biir te incha allah bu lii paasee rek dinañ ko doxal dinañ dem ci famille dem groupe dem ci groupement de famille dem ci ASC yi comme nawetaan yaa ngi ñëw dem ci jeunes yi toog waxtaan ak ñoom sensibiliser leen pour yeneen échéances yi ñëw incha allah. bon ci ñu ubbi seen bët non euh, euh, euh, surtout ci côté violence bi am ci dëkk bi li ñuy gis ci dëkk bi li leen di gëmloo li leen di wax ñuy xëy di manifester di ci di di ci génn àdduna ñi ñi leen ñi leen koy defloo doo ci gis seen doom seen doom yaa ngi dem di jàng ci école yu baax et ainsi de suite sensibiliser aussi ñu gëm seen bopp. xam ni ndaw mooy defar dëkk tey mag ñi mën naa ne seen wàll wéy na ñun ndaw ñu fi def ñun ñooy defar seen dëkk lan la ñuy defar suñu dëkk teel a xëy guddee wàcc gëm suñu bopp kese moo fi nekk. noo jàngatee communication politique bi jamono ji ak violence bi ci bi waaw je regrette quoi sérieusement parce que loolu dañ ko doon dañ doon a xaar sax ñun ndaw ñi mais léegi da ngay gis mag ñi dañuy kuñ ci tàllal sa micro nga yàq sa moroom musiba loolu loolu doxul réew ñun ñëpp ku ni da nga jug pour defar pour man waroo xasee ku xas rek pour man jóge pour defar kon man li may woo li may ñaan sunu waajur yi di ko ñaan jeunes yi moo di ñu conscient ci li ñuy def ubbi seen bët xippi seen i bët xool bu baax li leen jëmale kanam ñu ànd ci lépp képp ku leen di nax wala mu leen di wax la nga xam ne daf leen di andil musiba ñu jël ko tege ko ne leen waaw. kon ñu ngi lay ci kanam euh, heure bi. waaw ba ci kanam incha allah te xam nañ ni bu neexee yàlla résultat bu mag a mag a mag dina dina dina am incha allah waaw bon incha allah bu neexee yàlla dañuy gagné fii largement parce que génn nañu boo xoolee école bi di nga xam ne à chaque fois bu vote daan am tension dafa daan am mais ndaw yi nekk ci carte bi yëpp bi pas dañoo génn ànd ak mouvement bi ànd ak coalition présidentielle benn benn bokk yaakaar fas yéene kaa jox ndam bu musa am biir si salam incha allah merci beaucoup Paul Mouda Kane ànd fi ak soxna. Ramata Sy soxna Ramata Sy di responsable des femmes ci biir mouvement vie soxna si depuis sànq ba léegi ñu ngi leen gis ngeen di togg di yàq di jox nit ñi lan moo waral lool waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw waral lool lenn kese la ndax dañoo ànd ak jàmbaar ju mat a àndal muy Mouhamed juuf mi mu yor mouvement vie mu nekk nag doomu Cité Lamy te ñun ku ne Sita Lamine ku ne doomu Sita Lamine ne xale Sita Lamine mu yàgg def nag lu baax ci Sita Lamine yàgg jël ay moyen boppam di ko def ci ñun ñi nga xamante ne ñoo jigéenu Sita Lamine yàgg dimbali ay doomu Sita Lamine kon moom su wootee mouvement vie ñun du ñu def lu dul jug ànd ak moom loolu moo war ci suba ba tey ñu nekk ak moom di togg ak yàq togg indi fii ci école bi lépp rek ngir jëmm ji ndax wax dëgg yàlla nag ñun doomu Sita Lamine ñun ñoo war a jug engagé wu en tant que des citoyens yaa ngi dégg jàppale ki nga xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi ndax ñun ku ne xam na ne Grand ba fa ministre ya nekkee ñu far leen fa ñoom Ablaye Diop ñeneen dañoo defar seeni tali karo mu yem biir yaa ngi dégg kon ñun bu ñu amee doomu si tamit mu ñëw fi bëgg ñoo ñun lu ñu def leneen lu dul jàppale jëmm ji doomu si tamit defuñu leneen yaa ngi dégg leen nag la ñu bëgg mooy ñëpp génnandoo en masse ñu ñëw voté ci école fi mu toll bu ñu paree nii dañuy lagaat dellu génn maire yi lokkati jeunes yi ñu ñëw àggale vote bi su ngoonee ñu ne wiw suñuy loxo ca kaw. loxoti loxoti loxoti mooy maanaam génn nit ñi ndax am na ñoo xamante ni ils n'ont rien compris dañoo toog te comprendre léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo comprendre xam ne jëmm ji moo ñu ñor moo tax ñu bëgg a dem leen ñu ñëw ànd ak ñu ñëw voté si. Euh, jamonoy bu ngeen defoon li ngeen war a def ngeen toog ba heure campagne def nañu lépp li nga xamante ne loolu moom moo ñu war dugg nañ ci kër yi wax nañu mais am na ñoo xamante ne nii tey jii dañ xëy na seen dañoo dañoo tayal génn xëy na loolu moom moo tax ñun ci loolu nag moo tax ñu bëgg a jug dem génn leen ñu ñëw ànd ak ñun voté ndax lépp rek ngir jëm ji Mouhamed Diouf loolu moom moo tax a jóg te moom la ñuy dox ci suba ba jant soo. mouvement vie lu muy euh, vision intégralité euh, développement engagement. jërëjëf jërëjëf. Moussa Ka lay jiite. lay lay la la jox naa la sama carte te du ma ko nangu la la la la cité la mi ànd ak femme yi nga xamante ñooy femme Ameth Diouf ñu nekk fii ci seen waañ bi nag ñu leen doon laaj naka lañ dundee journée bi togg beeg yooyu yëpp naka la demee soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaanal ñu fi teew ñëpp aussi di ñaan ndam li ñuy wut yàlla nañ ko yàlla may yàlla na Macky Sall am ndam li ci barke mu Mouhamed tey nag macha allah dara manqué wu fi ndax lépp suñu doom ji ndax àll da nga koy dàq mu dugg ci kër gi macha allah Cité Lamy ñëpp génn tey te bu ñu génnee tey ginnaaw yàlla ak yenante bi suñu doom ji Amet Diouf moo tax moo génn ñëpp ndax ku ci nekk élection da daan jot ñëpp dugg ci seen kër yi toog am na ñoo xam ne sax daawuñu voté ba ci benn ci man mii mais ginnaaw yàlla yonent bi ñun ñëpp dañoo mobiliser wu génn pour jàppale suñu doom ji amee Diouf te xam ne lu ko jar nag lu ko jar ko tax ci suba nag la ñu yeewal dara manqué wu fi macha allah togg nañu suñuy añ togg suñuy reer naan suñuy boisson naan suñuy attaaya te lépp nag ginnaaw yàlla yonent bi moom la suñu carte bii nag ñoo ko moom te ñun Cité Lamy macha allah dañoo solidaire ñun ñëpp a fas yéenee jël suñu carte bi sànnil ko Ameth Diouf bu ko kenn fàtte mooy APR bi bi am bopp fas bi sànq ba lépp ñëpp ba léegi ñëpp ñu ngi laaj ban la ban la wax nañ ko ñëpp won nañ ko ñëpp te bu neexee yàlla ñëpp ay génn. bari woon nañ fi ci suba fii daa fees dell ñëpp nga école ba dem voté ji te duñu sànnil kenn ku dul suñu doom ji macha allah lu mu bëgg dinañ ko am amet ci kaw ci kanam nag moom yaayam dafa baax jàmm rek la ñuy am moom rek la ñuy ñu daal dékk micro bi suñu maman bi mu wax lu mu xalaat ci journée bi ak Ameth. asalaamaaleykum. ginnaaw ba ñu sante yàlla. di ñaan yàlla commencé lii ci bisimilah rahmaani rahim. ndax buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax man yaayam la te kenn merewu ko ci famille bi li muy xale xale ko am jom la moo tax ba mu ne ku ne jóg leen ñëpp a jóg gis ngeen fii la macha allah dara manqué wu fi koñ bi ñëpp a génn seen kër biñ naan dañoo jaay suñuy lal waaye ñii tey dañoo tëj seeni buntu kër kenn newul ci kër yi ñëpp a génn ndax Ameth Diouf mii li muy xale xale yaru na baax na am na jom te lii rek te lii rek war na koo firnde ndax kenn mënta luyee ay nit ay sées na ku ne mën nga koo luyee waaye fi mu ne ñëpp am fu la ñëpp a yeewu te moom mii man de dëgg yàlla maa nga jóge ba fayu ca gannaaw fa laa jóge nii te moom a tax a jóg neewoon naa ko tey sax naru ma woon a woote ji ànd ak sunu waa koñ ña nga ca kër ga fi ya feesoon del te gannaaw bu buñ toppee ci ginnaaw Macky Sall mii sama doom jee tax Diouf dañ koy ñaanal lépp lu mu sumb rek yàlla na ko ci yàlla may ndam ñun ñëpp a ngi ci ginnaaw bu mu tiit bu mu ragal moom na teen daagu na teen rek daagu nag fu ko neex na jaar dañ laa dégg ci sa wax mhm. nga ne a vote ji bëri na ay jigéen yu mel ni yow mhm. naruñu ko woon te ba léegi nii naruñu ko nan ngay wax mhm. jigéen ñooñu ah ñu mobiliser rek jóg ndax ku ci mel ni ku ci am doom ju mel ni Ameth Diouf mii soo ko narul woon sax di nga jóg maki Sall na ku ko war a sant la ku ko war a jàppale la ku ko war a reconnaître la ndax fi mu ne ñëpp a sonn ndax dëkk bee métti ceeb seer na diwlin seer na borom kër yëpp a sonn nag ah waaye moom la ñuy wax ndax moom la fi yàlla te moom la ñuy wax de fi mu ne kuy meret moom ngay mere boo ci xamee dara boo ci xamul dara moo tax nag makki na sant Ameth Diouf mii bu baax a baax a baax ndax ku ko mere woon rek jàpp nga ko waaw ku ko mere woon jàpp nga ko ndax Ameth Diouf mii ma sant Ameth nag bu baax am na ko gën a ñor génn leen ñu yóbbu carte yi sa école ba ñu jël suñuy carte jox ko am am Ahmed jébbal ko président Macky Sall ndax kii lu mu yóotu da koy jot geestul arabe école arabe bii. mi ngi nii ñoo ko ko ko fi samp. Ah. maamam lu man ñaar téeméeri nit a ngi fiy jànge Adja Seynabou Samb te kon say dara kon nag amen alxuraan ji sa samp fii yal na la wallu ba lii ngay yóotu nga jot ko ñun yëguñu dara lu seer ndax fuñ ne amet amet jox ñu ñu dem marché dugg togg lekk ceeb yu nii la ñuy lekk yekkul bàyyi kenn maa ngi dem solu naa barke sëñ Fall ñoo doon togg man maa ngi ñëw léegi sur de vote capitaine Moussa Dioum ànd fi ak ki nga xamante ni mooy mandataire Benno Bokk Yaakaar di monsieur Diop monsieur Diop ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. Euh, lan moo waral teewaay bi fi teewaay bi donc c'est li ñu fi dajale mooy vote 31 juillet bi relative aux élections aux élections législatives voilà. Euh, gis nañ par rapport ak yeneen centre yi mais nit ñi taxul ñoo ko génn noonu. waaw xam nga sénégalais moom tout le temps rek en matière de vote il des heures de pointe donc vers midi nit ñi duñu teel a jóg vers midi xam naa ne y aura un rush et peut-être à la dernière minute mais on si attelle li nga xam ne lii moom moo aju ci dem jëli leen wala woo pour dem seeti lan moo leen téye ñu ngi ci on a mi en place des équipes neuf équipes yoo xam ne yi bu ci nekk c'est affecté à un bureau de vote sur la base également des visites de proximité yi ñu jotoon def ñooñu ils sont en rapport direct avec les populations ñu di leen woo ñu dem aussi di ñu dem di leen jëli ñu ñëw pour voter. naka la vote bi demee ci biir. waaw sa se passe bien apparemment yi amul benn difficulté donc on a aucun problème n'a été signalé mm-hmm. les bureaux ubbi na à l'heure les représentants, nos représentants de bureau de vote aussi. ils sont venus à 8 heures, on les a installés et on a également conditions yi nga xam ne moo leen di permettre de siéger et d'être fixe à leur position également loolu assuré nañ ko notamment le petit déjeuner ak yooyu. kon ba d' accord on on espère bien avoir la victoire une victoire vraiment éclatante vraiment. ci capitaine Moussa Diouf taxaw ki nga xamante ni mooy euh, monsieur Ndiaye Ndiaye Meng nekk euh, conseiller municipal à la mairie de la zone nord tonton ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa RTT TV di leen jox seen euh, wàccuwaay. dafa mel ni voté nga ba pare. non voté gumba comme dama nekk ci organisation bi. dañuy bàyyi ba mu gën a rafet rek. ñu doog dugg ci urne yi def na woon fa woon rek. Euh, naka la élection yi demee ci biir fii. waaw bon c'est un climat apaisé ah. waaw xam nga jaxaaw moom. benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. malgré que am na adversité mais damay wax ne bon comme ànd bi dafa yàgg rafet du ma sa ñaaw waaw adversité adversité bi sax du du du feeñ quoi parce que lépp ci biir jaxaaw la quoi lépp ci biir Thiès la voilà. comme activité yi daa bëri te da ngaa nekk ci organisation bi nañ gàttal la bàyyi la nga yegg ci biir. waaw di rafetlu vraiment interview bi eh, di ñaan yàlla aussi yàlla may ñu ndam kaw na woon fa woon rek ba li ñu sumb bugg koo yeggale ci Thiès ak ci Sénégal yàlla defal ñu ko. kon ba ci kat ñu ngi capitaine Moussa Dioum ànd fekk ki nga xamante ne Traoré nekk ki nga xamante ne mooy mandataire Yewwi Askan bi fii ci capitaine Moussa Dioum ñu ngi lay sañ sëñ bi. ñu ngi lay fay bu baax soxna si. naka la élection yi di déroulé wu ci Euh, gannaaw bi ñu leen remercier si seen teewaay fii nga xamante ne mooy euh, centre capitaine Moussa Dioum ñi ngi am euh, dal bu bu rëy fii ci ci centre bi gis nañ ni vraiment climat bi comme ni ko suma naataango bi waxee apaisé na et que le vote se déroule normalement et que tamit gis nañ ni nag absentéisme bi bari na lool lool lool donc ñuy passé wàlla message wax sénégalais yi nañ génn ñëw voté. Euh, est-ce que du climat bi moo ko waral wala nit ñi est-ce que dañoo élection yi da a ñorul moo tax génnuñu. non du ma ne élection bi moo leen ñorul mais jàpp naa ne xëy na climat bi moo leen xaw a euh, dissuadé euh, mais dañ leen di invité rek ñu ñëw def seen devoir citoyen ñëw voter parce que loolu lu am solo la. am na beneen remarque bu ñu fi def le plus souvent mag ñi rek la ñuy gis ñuy voté. Mhm, waaw mais bi pa xale yi jël nañ seen devant. parce dañoo bëgg changement moo tax. xam nañ ne à travers ce vote là mën nañu déterminer ñoom seen avenir moo tax incha allah rabi jeunesse bi dina wane boppam tey. kon ba ci kanam heure déploiement bi. incha allah rabi merci beaucoup. femme mariée fa la ma Idrissa doon xoolal bu yàgg doon yàgg naa doon député ah, na ah, ah, waaw mais sant yàlla baax a baax noo gisee élection yi euh, sant yàlla euh, di rafetlu bu baax a baax nekkin bi maa ngi tasa rek suma yaay ñaan ñaaña kan ñëpp xam nañ ko donc di rafetlu bu baax a baax a baax lii nii di wax ni euh, ñu ne benn lañu moom suñu yaay nangu nañ li ñu fi def euh, am nay compétence doxal na ko le vote se déroule normalement euh, loolu aussi dañ ciy kontaan euh, bëgguñu ko bëgguñu fi yàgg dañoo ñëw rek pour xool ni muy déroulé woo ànd ak sunu responsable yi ànd ak sunu kilifa yi juste rek pour ñu observer donc bu bëgguñu fi yàgg je pense il y a déclaration des faits on les fera autrement mais li ñu waroon xool daal mooy le vote se déroule normalement tranquillement 18 heures bu dina tëj on va proclamer les résultats et qui incha allah rabbi dina dina jël la victoire ñu ngi yàlla mu nekk ñun bu nekkee ñeneen te mu nekk transparent aussi de manière transparente on va l' accepter li ñuy bañ mooy influence wala def loo xam ne du noonu kooku moom kenn du ko nangu moom incha allah rabbi loolu daal lañ ci bëggoon wax et puis yéen sax aussi ñu ngi leen et restez les yeux ouverts parce que vous êtes les yeux du peuple salaamaaleykum wa rahmatullah ànd ak sa frère euh, Birame la ñuy waxtaanee mhm. euh, fii Sénégal la fii Thiès la ah muy doomu Thiès Nord man ma nekk Thiès Nord mu bokk Yewwi Askan Wi man ma bokk euh, parti réew mi bu Idrissa Seck ba tey ma tënkuwaat ci benn Bokk Yaakaar kon bu ñëwee fekk ma ci centre bi muy wut may wut duma def la lu rafetal ko ndax àddina amul solo bu ngoonee képp ku yàlla may rek nga xam ni yow la may. loolu moo tax ma saafante ak moom ci moom daf ma fonk daf ma teg place euh, fu mu toll di wax ak man daje nañu ministère de la pêche mu jox ma fa cër ci kanamu kilifa yëpp. moo tax bi ma ko gisee ma nuyonteeg moom saafante ak moom waaye teewul maa nga ca parti Idriss Seck ba ma nee woon tey jii laa fa gën a ne tënkuwaat ci Benno Bokk Yaakaar ci fas yéene nag ndam li tey kenn du koy jël ku dul noonu bu si yàlla àndi. mais dafa mel ni confiante nga de par rapport résultat yi. waaw waaw am naa confiance bu baax a baax waaw yàlla bu yàlla tas sa yaakaar. Augustin Tine ak Aïda Gaye Goudiaby ak ñi nga xamante ni euh, ñi ngi ci niveau national liste nationale yi ci sunu côté ci Benno Bokk Yaakaar yàlla na ñëpp am ndam ci dox nañ ci wax nañu ci ci am nañu ci yaakaar yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar. moom rek na président moom rek gañal na Macky Sall kii nga dëpp micro nii moom rek gañeel na Macky Sall gañeel na Idrissa Seck parce que nag daa def na faal ba def jote yi zone nord gépp nag taaxi kaw kaw sara kër Cheikh kër ma ji foo dem meer ñaaña def na fa lam fa war a def te kenn xaarul kenn nag te far foos nag ci kattanu yàlla nga xam day gañe moom rek gañeel na gañeel na président Idrissa Seck ñuy xaar nag suñu député yeewoo Medina Fall tudd Cheikh Gaye doomi Maysa Gaye ak Njaabi Fall ci kaw ja ak aw Dukuré ñu ngi fi nekk ak euh, la mandataire de Benno Bokk Yaakaar sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Oh, ah, ngi leen di fay ñu ngi leen di fay. naka la élection yi di déroulé fi fi mu ne nii. waaw fii moom dañuy sant yàlla rek élection yi ma ngi déroulé normalement amuñu benn problème bu ñu fi recensé amul benn incident aussi nit ñaa ngi ñëw di voté tranquillement delluwaat seen kër yi. par rapport ak yeneen élections yi ndax nit ñi génn nañ voté si. non par rapport ak élections yi mujj euh, nit ñi génn des na génn guñu mais je pense que d'ici 15 heures dina am rush. aussi dafa am différence parce que élection yële ñetti vote la woon dafa xawoon yeex moo taxoon bureau yi bloqué mais cette fois-ci le vote se rapidement donc moo tax euh, bureau yi xaw a yaraax mais am nañu yaakaar ni d'ici quinze heures 16 heures nit ñi dañu ñëw en masse. incha merci beaucoup li nga xam ne mooy suñu wareef en tant que sénégalais ñëw voté waaye li nga xam ne moom lañ ci gën a rafetlu mooy euh, dal gi ci constaté dem nañ ci centre de vote yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi gis na nit ñi ni ñu génnee voté massivement mais ànd ak dal te loolu yaakaar naa ni loolu lañ ci taamu. moom lañ ci sàkku ndax fii ñu toll nii Sénégal dafa soxla dal ak jàmm te yaakaar naa ni même ñi nga xam ni sax ñu ngi doon commencé doon te fitna biñ demee ba xam ne lii population bi bëgguñu ko dañu ci delluwaat ginnaaw kon jàmm jooju ñuy sàkku yàlla nañ ci yàlla defal ndam mais c'est l'occasion aussi ñuy remercier askanu Thiès mais également askanu commune Thiès noor mais nag aussi askanu population Médina Fall parce que nag yàlla def na fii la ñu juddoo fii la ñu lépp fekk Euh, bi nga xamee ni euh, information bi jib na ñu ne Cheikh Gueye lañ def ci liste yi Médina Fall amatul parti amatul coalition ñëpp a dank ànd ànd ñun ñëpp ñu nekk benn say ngir li ñuy wax man koo dem wuti ndam li parce que nag tey bis bu màgg la ndax euh, li ñuy wax l'histoire retiendra que à partir de ce 31 juillet 2022 Médina Fall dina gis tey doomam bokk ci ñiy teewal askanu Thiès ce pencu ndaw réew ma liñ ciy wax rek mooy sant yàlla te di ñaan suñu boroom yaakaar googu nit ñi am si ñun ba génn wuy suñu yàlla defal ñu ci loo xam ne ëllëg du ñu gis askanu cees di sëgg fas na nañu yéene taxaw assemblée nationale taxawaay bi war représenter askanu Thiès dignement mais fexe ba doomi cees doomi Sénégal ndaw bu fi nekk bu ñu taxawee biir assemblée di wax ñuy gis seen bopp si ñun. waaw mais loolu sant yàlla la parce que vraiment li fi xew ñun ñëpp gis nañ ko yàlla mooy def euh, yéene kenn du ko forcer ñun gis nañ ne population bi yéene nañu lii rek sa wane na ko. wax dëgg yàlla oh, waaw loolu loolu moom wax dëgg yàlla dëgg la parce que nag ñun ñëpp ay frères de parti ay frères lañ dëkk di doomu cees doomu cees Nord. te li li ci li ci amoon sànq c'est vrai politique moo ni demee politique moo ni bindoo. waaye li am solo li am solo rek mooy euh, ñun ñëpp ay frère lañ gis ngeen maak biram taxaw nañ joxante loxo nuyonte saafonte te loolu moo am solo parce que nag ñun ñëpp kenn ku ci ne Thiès na ngay bëgg représenté donc euh, mu jël engagement comme maak moom mooy su ma gañee mu remercier ma félicité ma mais également de la même manière moom it su ko yàlla mayee ndam te yaakaaru ne moom ndam dem ci côté parce que nag yaakaar naa ni léegi mbir mi leer na wane na boppam macha allah. ok amis téléspectateurs de la RTT TV ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey nag mooy le 31 juillet te ku ne 31 juillet ci Sénégal wax élection législative élection yi nga xamante ne ci war a tànn suñuy député maanaam ñi nga xamante ne ñooñu war a teewal suñu pencu ndawi réew mi muy la 14e tey jii nag ñu ngi fii nii buntu Gabriel Ndione fas yéene leen a dëgtal élection yi naka la naka la naka la demee aussi tamit naka la nit ñi di dundee élection yi kon ñu dugg ci biir ànd ak suñu caméra caat bu Serigne Saliou xool élection yi ci biir naka la demee ñu ngi fii ba tey biir Gabriel Ndione war a waxtaan ak ak euh, Alassane Gueye nekk mandataire bu yeewee askan bi fii nii ci centre bi di Gabriel Ndione euh, Alassane ñu ngi leen nuyu. ñu ngi leen di fay euh, ñu ngi leen di jaajëfal man la Alassane Gueye mandataire yeewee askan wi nekk fii ci école Gabriel Ndione muy école boo xam ne si toujours day am enjeu politique parce que école bi douze bureaux de vote la bon yaa ngi leen ma fekk sax may. Euh, réglé ak euh, appel yi may am ci biir bureau de vote yi vraiment boo xoolee tamit ni ma gisagum euh, bi ñu xëyee xëy na nit ñi ñëwaguñu ñu bari di vote ndax dimanche bi mais quand vote bi mi ngi dërulee normalement commencé na amul benn incident. bon macha allah et puis caali moom dafa baaxoo que fii mosuñoo am benn incident te yàlla na yàlla def tamit bii élection bi bokk ci vraiment. voilà ñu ngi lay jaajëfal kon. waaw merci. ba tey ñu ngi fii ci centre Gabriel Ndione ak ànd fi ak euh, monsieur Ablaye seen di nga xamante ne mooy mandataire benn Bokk Yaakaar fii nii tonton Ablaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di ziar euh, di leen gërëm ci interview bi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonentam bu tedd bi di leen nuyu bu baax a baax a baax. naka la élection yi di demee fi mu ne nii. waaw alhamdulilah sant borom bi rek bon comme ni ñu ko comme ni ñu koy waxee rek euh, commencé nañ ci jàmm. ñu ngi ñaan yàlla ñuy jeexal jàmm bouton soo xoolee fii euh, centre Gabriel Ndione mooy deuxième plus grand centre de vote bu Thiès Nord man nag maa fi nekk euh, maa fi représenté euh, Benno Bokk Yaakaar nekk mandataire bi ñoo ngi voté ci jàmm soo xoolee suba ba léegi nit ñaa ngi ñëw di voté ndànk-ndànk nag parce que soo xoolee ci suba maa ngi koy wax ma ne euh, par rapport li ma daan gis ci ci ci élection yi daan am gis naa ne nit ñiy voté taux de euh, de participation bi naa dina faible trop. parce que heure bi daan nga yëpp fees soo xoolee nii vraiment gis nañ ne ñii ñëwuñu mu occasion la ci ñun peut-être pour ñuy lancer appel pour ñi nga xam ne population yi surtout ñi nga ngi euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci biir quartier bi. fexe waxtaan ak ñoom ñu fexe génne ni ñu ñu mën a voté. Mhm. merci beaucoup tonton. ba tey ñu ngi fii ci centre Gabriel Ndione suñu papa ji voté ji ba génn ñu ko doon laaj naka la gisee vote bi ci biir. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah man la Thierno Cissé euh, délégué central bu Kees wot bi vraiment euh, ni mu déroulé ni mu war a déroulé ñun ñëwoon nañu rek pour def suñu devoir de civique wane ne aussi ñun ay citoyen lañu lépp lu ñu war rek dañ koy war a taxaw def ci liñ ci war a war liñ ci war a def looloo taxoon suñu teewaay fii tey woote nañ ba pare yàlla yàlla defal lépp jam lépp ñëw dugg ci bisimilah rahmaani génn ci alhamdulilah rabbil alamin si le meilleur gagne. liñ fi gis nag mooy mag ñi ñoo gën a ëpp ci ci centre bi lu waral lool xale yi ndax dañoo voté wala dañoo xamul voté wala devoir citoyen bi moom moo des. wala loolu nag moom moo ñoom moom kenn ku ne moom yaa xam sa prérogative ndax li tax ñëwaguñ xëy na dañu ñëwagul daañu ñëw. xëy na mën nañ am dañu ñëwagul ak daañu ñëw mais am naa yaakaar ne daañu ñëw. incha allah ñu ngi fii ak Fatou Bintou Deme Diaw di mandataire Aar Sénégal soxna si ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay sant bu baax macha allah alhamdulilah. naka la élection yi demee fii. waaw pour l'instant ça se passe bien très bien dans l'ensemble. gars yi ñu ngi ñëw voté si euh, mandataire yi tamit ñu ngi def seen liggéey normal représentant yi quelques soucis si ñàkk mais on gère ça on est euh, participation pour l'instant moom a a faible gars yi guñ na mais xam naa ne gars yi liggéey bi si kaw moo leen si ëpp nag après midi bi la participation

kenn desul yaatal naa ko daal lépp rek président Habib Niang moo ko waral macha allah lépp mot na. Mhm. ndax nit ñi ñu ngi commencé di ñëw di voter. waaw man di sept laa fi ñëw te bu ma ñëwee ba léegi macha allah nit ñaa ngi génn di wote. ni ñaa ngi génn di wote te ñi ñaan yàlla rek mu sedd rek mu sedd rek dal rek parce que campagne nañu macha allah dal na. Mhm. amuñu xuloo ñu xeexuñ te ñun ku ñu xam ku ne dañoo dal mhm. waaw. sedd na guy daal macha allah te yàlla na continuer noonu incha allah rabbi ndam rek yàlla baax na daal. comme jot bëriwul ñu ngi lay bàyyi nga yegg. waaw merci waay awa merci. ñu ngi fii ak Pape Thialy ci suba ba léegi ñu koy gis muy dugg di génn Pape Thialy moom sa teewaay fii tey. sama teewaay daal maa ngi sant yàlla bu baax baax. di autorité administration bi. wax dëgg yàlla sous préfet yi jàmbaar lañu. police jàmbaar lañu. tamit remercier yéen journaliste yi. ndax journaliste yi amal amal ngeen askan mu njëriñ. wax dëgg yàlla gars yi waroon nañu leen wutal salaire bu baax boo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du toog naataange. loolu xaatal loolu. ma ne journaliste yi. Mm. war nañ leen wutal salaire bu baax boo xamante ne. te man incha bu si yàlla àndee si combat boobu laay jug. Mm. bu ko maire yi mënul porter maire yi au moins war nañoo mën a génne benn 500000 jàppale ko journaliste yi. te di ñaan euh, seen bi. yàlla na gën a nekk tele bu mag. Mm. ndax yéen wax dëgg yàlla manifestation bu nekk dañ leen di gis ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di saag ñu ngi leen di sànni xeer mais faale woo leen gars yi yéen seen problème askan bi kese la waaw. waaw Pape yow voté goo de. <laughs> non voté looy xaar léegi ma dugg voté. Hmm. waaw kon cëfër cëfër yi bëri na. waaw su ma voté ba pare rek ñëw egg ba tey ak kenn koo xamante ne dafa ñëwoon fii vote si sëñ bi naka nga gisee vote yi ci biir. waaw ça va ah, bon vote yi parce que ñëw naa dugg naa voté naa euh, pratiquement amul kenn ah ku ñëw léegi di nga voté. waaw remarqué nañ ko ne faible participation moo am pour le moment. waaw pour l' instant nii y' une faible participation mais nag euh, fii Gabriel Ndione euh, loolu c' est c' est une coutume quoi parce que fii tardivement la gars yi di ñëw. pour mun a voter la plupart le matin kenn du fi nekk mais au au soir vers 15 heures 17 heures la gars yëpp daw di ñëw pour voter si quoi. Euh, remarqué goo fi benn incident bu fi non franchement gisuma fi dara lu anormal nekk ci ci ci ci bureau de vote bi quoi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok merci ñu ngi fii ak benn tonton boo xamante ne dafa ñëwoon ak euh, accomplir li nga xamante ne mooy devoir citoyen tonton ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi di fay euh, di békk ci nekk cim réew la nit ñay def danga koy def. waaye toog fii di critiquer di critiquer di critiquer bu wootee jotee doo wootee kooku moom ñëpp la tane kon ñu ngi appel citoyen yëpp ñu génne ci kër yi dem woote ji ñiy bu nu toogee ba pare ñu sangu set ñëw woote ji ñëpp ñibbi nag ci jàmm bu nu wootee ñu ñibbi ci jàmm bu waxtu résultat jotee ñun ñëpp ñu ñëw déglu déglu ku nekk félicité sa morom bu nu xëyee suba ñëpp liggéey loolu daal la ñuy ñaan ci élection bi. vraiment te yàlla nañ ko yàlla sunu borom bi defal. non non ci biir pour l' instant amul benn incident te ba pare vote bi gaaw na. Mhm. kon bii pa am na ñu yaakaar ne. Mhm. Euh, balaa 18 heures ñëpp daneen pare ndax vote bi gaaw na. Mhm. waaw ci mais ci biir moom vraiment am na ordre ak discipline. nit ñi ku ci nekk da ngay ñëw saafonte dem woote après nga génnaat. donc am ñun gis ah fii de gisuñu fi benn problème. waaw am na sécurité espace bi yaatu na maam daal amul benn problème waaw jërëjëf tonton merci beaucoup. ci biir ordre bi ak discipline bi sax ci la ñuy des ndax agent de sécurité maanaam policiers yi ñu ngi fii ci buntu buntu centre bi nekk di veiller à la sécurité de la population ba ñax ba carte yi dañuy vérifier ñi nga xamante ne ñoo yore seen carte d'identité pour voter boo nekkul mandataire wala nekkoo personne bi nga xamante ne dangaa habilité pour dugg ci centre bi doo dugg ci centre bi rien que rek pour assurer li nga xamante ne mooy sécurité euh, population bi ci biir loolu ñu ci sant bu baax aussi di leen gërëm les forces de fii ak beneen tonton boo xamante ne dafa ñëwoon ak accomplir li nga xamante ni mooy devoir citoyen tonton ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si ñu ngi leen di fay wax dëgg yàlla di leen gërëm waa RTT TV eh, di di gërëm eh, ki nga xam ne wax dëgg yàlla initiative bi ci moom la jóge muy le président Mamadou Seck nga xam ne mooy président regroupement de tailleurs de la région de Thiès ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. voté waaw waaw voté naa voté ba pare. waaw naka la vote waaw vote yi moom vraiment comme niñ ko waxee nii pour l'instant daal wax dëgg yàlla nit ñi des na quoi war nañu parce que soo xoolee centre bi ni mu doon mel euh, depuis. année yi passé ak euh, tey jii nii moom xaw na am tuuti différence parce que daal xaw ma nawet bi la xaw ma tey euh, nan la demee noonu daal mais nit ñi daal des nañu pour ñu ñëw massivement vote si des na daal ñu ngi leen di ñaan nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi nañ ñëw mottali li nga xam ne mooy seen devoir citoyen ñu ñëw voter si parce que vote yi dafa am solo am njëriñ ci réew mi. jërëjëf waaw léegi nag comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa ñun nag ñu ngi ci gox bi wax dëgg yàlla di euh, lii sunu vision mooy sunu quartier mu ñor ñu trop ñuy wax waa gox bi yëpp nañu génn si ñi nga xam ne ñooy voté si Gabriel Nione nañu génn si daal di voté voté si parce que am na solo bu baax a baax a baax vraiment di gërëm tamit sites yi nga xam ne yéen yéen a fi nekk yëpp yëpp yëpp yëpp di leen euh, jox daal rendez-vous ne fii jàmm ak salaam daal moo fi xew amul benn problème ñëpp ngi ñëw di voté si euh, kii naal mais xaw na yaraax daal des na nañu ñëw daal voté si. merci beaucoup. ba tey ñu ngi fii ci capitaine Moussa Diop ñu ànd fii ak le juge dem ñu gis ko mu dugg ci biir bureau de vote am voté ba pare def visite yi nga xamante ne mooy yeneen bureau de vote yi monsieur le juge ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. naka la vote yi di déroulé wu. waaw euh, vote yi ñu ngi déroulé wu dans le calme dans la paix dans la sérénité. ñuy sant yàlla bi ñu permettre ñu def suñu pré-campagne suñu campagne électorale dans le calme et dans la sérénité tey ñu ñëw accomplir notre devoir citoyen euh, ñuy woo sénégalais yi ñu génni en masse wax dëgg yàlla ñëw voter parce que loolu mooy devoiru citoyen bu ne réew mi am na nu muy demee. Euh, saa yow léegi gis nañ ni par rapport ak yeneen centre yi centre bi nit ñi taxu ñëw noonu. pour yow lan moo ko waral. waaw uh, uh, constat boobu la ñu def ci centre yëpp centre yëpp yi nga gis uh, dañoo gis ni nit ñi ñëwaguñu. ba tey fii capitaine Moussa Dioum euh, ñu ànd fi ki nga xamante ne mooy juge dem bu baax ci interruption bi jusque ne la mandataire da yeewee askan bi moo fi nekkoon doon indi ay attroupement ba rapport ak euh, conférence bi nga xamante ni juge dem mi ngi ko doon amee kon buñ ko xoolee ci biir noonu coow laa ngi noonu ba léegi policier yaa ngi fi di jéem a rétablir l'ordre en attendant ñuy xaar ndax dinañ continuer suñu présentation oui ou non ñoo gis benn papa boo xamante ne voté na ba pare naka nga gisee vote yi ci biir Euh, man dama teel a ñëw macha allah lépp jaar na ci yoon matériel bi teel na ñëw représentant bureau de vote Sénat président bureau de vote dañoo teel a ñëw man 8 heures pile laa dugg woote maa njëkk a woote bureau 9 kon macha allah boobu ba léegi suñu benn jafe-jafe ñun ñaa ngi ñëw di woote massivement euh, mbégte bi ñu am nag mooy suñu teeru suñu président de coalition Idriss Seck teeru ko teeru bu am doole bu am maanaa bégal waa koñ bi nit ñaa ngi génn di voté massivement incha allah rabi lépp dina jaar ci yoon. ndax nañ ko tey. waaw mhm. génne nañ ko. génne nañ ko parce que am na loo xam ne moom la ñenn ñi nga xam ne dañoo dañ leen di jox ñuy war a toggal koñ bi koñ boo dem am na fay jigéen yu bari ñi nga xam ne ñu ngi togg bu ñu toggee ba pare dañ ñëw woote ci massivement incha allah léppay jaar yoon. noo bien fait et ils sont braves dañ leen di ñaanal yàlla ñu am wér. ñu fi newul woon tey xëy na am na ñi ñoo xam ne dañuy am gaañu gaañu ci buuxante bi quoi bi fi Idriss Seck ñëwee maa ngi leen di féliciter di jaajëfal ko di féliciter la presse yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëw di wane lépp di waxtaan ak nit ñi jërë ngeen jëf. yàndoo jàmm. ñu ngi nekk ak mandataire u Benno Bokk Yaakaar fii mu tudd Gilbert Gilbert ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si di nuyu ñi nga àndal ñëpp. élection yi di déroulé biir. waaw yi biir centre de vote bu Mary Kairé ñu am neuf euh, bureaux de vote am euh, plus de neuf cent plus de neuf mille inscrits du moins euh, li ñu gisagum si suba léegi depuis huit si bilo yëpp am dal. parti yi fi nekk yëpp seeni représentant ñi ngi si nit ñi ñi ngi voté si jàmm di ñëw si jàmm waaw te président Idriss Seck ñëw na fi yéen a gis ni ka ran leen ak yiiree waaw yeneen yeneen représentant yi fi nekk ñoom ñoo commencé di indi coow mooy coow yi ngeen ni seen fële te ñoom la seen biir ñun Benno Bokk Yaakaar waaran leen ñoo ne zéro zéro histoire ñëw votel Benno 18 heures Benno gagné ñu jubilé dem seeti mandataire communal ànd ak moom si président Idrissa mu jox ko ndam li ñu jox président Macky ndam li. ma la déggee waaw yow yaa gisandoo liste biir kuy dugg lan lay wax Gilbert kuy dugg lan lay wax ñun rek lañuy ñuy woo waaw ñun ñoo dëkk si koñ bi ñu ñoo amal koñ bi njëriñ te tey jii waa koñ bi ñoo ñu bëgg a delloo njukkal waaw. moom lañuy wax ni ni nit ñee wax. waaw ànd fekk euh, ñu ngi lay fay. waaw xam nga dëkk bi moom ñun ñëpp ko bokk. bu nit ñi dee voté. li war a mën a am mooy ñu nit ñu xëy dem voté ji. tànn ki nga xam ne moom la yàlla dogal. ñu bëgg koo tànn. parce que loolu suñu droit la. bi ñu voté ba pare nag. Habib kan bi yàlla dafa dogal Serigne kër si moo ñu boole. sëriñ Babacar nag ku koy tudd loo nekk booñ ca wooyee ñu ñëw booñ ca woowut ñu ñëw bi yàlla dogalee ñu voté ba pare ci la ñu départ ñëw fekk si ko ngir ndokkeel ko ci coono yi nga xam ne ci lañu jóge ci tës-tës yi nga xam ne ci la ñu nekkoon waaye ñu ñaax leen nit nañ ko def ci jàmm ndax dëkk bii di Thiès ñun ñoo ko bokk ku fi mën a gañe ku mënti doon ndam li Thiès lay fanaan demul Mali demul gine demul Ziguinchor Thiès lay doon. kon dëkk yëpp nañu xëy dem voté ku ne nag am nga droit dem tànn ka nga bëgg a àndal nga jël carte wa dem votel kooka waaye soo voté ba pare bul ci boole coow bul ci boole xuloo bul ci boole dara ndax fitna tan wattaqoo fitnatan laa tusibanna lazina zalamu minkum xassa yàlla rëbb na kuy yee fitna te ay élection pour mu am jàmm mooy ku ci nekk defal la la war loolu moo tax bi ñu voté ba pare ñu ñëw fii ci Malick Kayre yàlla dogal di ndokkeel si Habib kan far ñu daje fi ak yéen yéen nag na leen ñëpp bàyyi xel. bu leen kenn tuutal bu leen kenn minimiser. ndax élection yi pour mu àgg fi mu war a àgg ci yéen lay jaar. ñun nag Cees la ñu am seen yii nga xam ne muy. Euh, sem 24 ak RTT bu leen nit ñi dooleelee yàlla dooleel na leen te ñun dañ leen a war a dooleel parce que bi ñuy campagne kenn demul jëli TFM ñoo yéen la ñu jël mais boo ëllëgee bu ñu amee njariñ lu ñu war a def bàyyi leen fi dem ci it télé yu mag yi complexe la nañu ko bàyyi ñëw leen fii ci Thiès ngeen yëkkati sit yii dooleel leen ndax ay ndaw fii liggéey te bu dee ñi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar président Macky Sall du moom moo woote xëyu ndaw yi kon ñii ubbi seen emploi yor seen i moyen defal ko seen bopp ngeen nekk fi nekk ay leader bàyyi leen fi di dem dakaar complexe képp la ku ko ciy def ba ko ñun yéen la ñu am yéen la ñu faral yéen la àndal ndax yéen ay dëkk Thiès ñun du ñu dem TFM waa Dakar a koy ak ña dëkk ñun Thiès la ñu dëkk nañu yëkkati euh, vingt 24 ak RTT bu ko defee nag jàmm gën a am moom daal hmm. élection yaa gi daw ki war a ki imam bi ma bi ma la déggee da nga ne ndokkeel si président Habib dafa mel ni yow fi mu ne jox nga ko victoire bi te demaguñ fenn. jox naa ko victoire bi parce que def na li ko war. Mm-hmm. joxuma ko gagné. Mm-hmm. waaye victoire def li ko war ci campagne bi. Mm. kii gagné ëllëg nag yàllaa ko xam. Mm-hmm. waaye victoire bi ma koy ndokkeel si. mooy bër kii démb fukki fan ak juróom-ñett ñaar fukki fan yu manqué ñu ngi ci terrain bi. ba tey jot ñu xëy di voté da ngay ñëw ndokkeel ku nekko ko massa ci li passé lii di ñëw nag yàllaa ko xam ki yàlla tànn ne mooy gagné kookaay gagné yàlla na fekk muy ko gën Sénégal. centre de vote Malick Kairé Diaw ñu fekk fii euh, représentant Yewwi Askan bi sëñ bi ñu ngi lay euh, ñu ngi leen di fay ça va waa RTT TV. lan moo waral teewaay bi fii. Ah, waaw ok comme vous le voyez man je suis le représentant de Askan Wi maa ngi déglu fii nii ci Malick Kairé naka la élection yi du dérouler fi mu ne nii. Ah, ça va plus ou moins ak soo xoolee asamaan si lu mel nii y a des gens yoo xamante ni peut-être suñu génnee mën nañu yaakaar ne dañuy taw mais il est ma xool midi midi cinq minutes. je pense que non il est une heure deux minutes enregistré nañu cent un vote cent un vote yoo xamante ni jot nañ fee ñëw sur trois cent sur trois cent nombre d'inscrits quoi waaw. am ngeen confiance pour la suite. xel mën na dal mën na dal parce que y a des yoo xamante ni soo génnee soo leen interpellé waaw dinañ wax ni ça va quoi que ni voilà affaire yi ñu bëri jot nañ fee ñëw xam soo génnee la même chose ngay wax yeewu yeewu yeewu donc mën nañoo am yaakaar que ni Marie Kéré mun nañ ko gagné ko ndax amul benn incident boo xamante ni noté nañ ko fi. non non non jusqu'à présent élection yi mu ngi ci déroulé tranquillement gars yaa ngi dugg tranquillement di génn tranquillement donc là moom xel mën na dal quoi. jërëjëf monsieur ñoo ànd ak euh, Jabel Alaaji Jabel Mbaye nekk euh, coordonnateur des des jeunes communicateurs à Thiès mm. ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax a baax a baax a baax soxna si. Mm. ba voté nga ba pare. waaw dem voté nañ ba pare. Mm. waaw di ñaan euh, ci yàlla yàlla defal jàmm. Mm-hmm. ndax li am solo moo di fii ñu ne di école Marie Kéré mm-hmm. li fi nekkoon lañ bëgg a delloosiwaat. jeunes yi nga xamante ni ñoo toppoon ci derrière le président Idriss Seck ñoo delluwaat toppaat ci ginnaawam ndax xam nañ doomi dëkk bi la dëkk bi ñor na ko jamono nag bu dee dox da ngay dox ànd moom parce que ñun violation bi lañ mu jóge fi sunu doom yi buñ leen dee rey benn par benn ban njëriñ lañ yemal ëllëg amuñu ñu benn njëriñ nit nag da xool fa sa bët njariñ ne nga xam ni say doom ëllëg si biir njàng bi da ngay gis ku jàng bay bëgg a dee jël say diplôme de ngir lan léegi bu ñu jàppalee suñu doomi dëkk dimbali leen jeunes yi nga xamante ni euh, mën na leen di jàppale ñu jàppale leen waaye kaay xeex kaay def lii kaay def laa loolu amul njariñ maa bëgg toujours ñu bàyyi wat xel xam ni dëkk bi nu ne ñun ñoo ko bokk ñoo ko mën a defar ñoo ko mën a yàq te xam ni Thiès Thiès Thièsu ñëpp la ëllëg si biir xale yi ñun ñoo leen mën a soutenir ñoo leen mën a jàppale le président Idrissa Seck ñëw na voté si vote vote bu rafet gars yi yëkkati ko delloo ko li mu bëgg a bi ngeen bëgg a def mm. wala boog li nekkoon woon ni ngeen bëgg yi ñun def nañ sensibilisation wër nañ ñi na les communicateurs traditionnels à Thiès li ñoom ñëpp def na ko moo tax fi dul communicateurs yëpp jug nañ àndandoo ko de ko jàppale def de proximité wax ak leen xamal leen ni nit la mu war a mooy école euh, mu dëkk war na faa mën a bàyyi xel communicateur wax lu baax lañ ko bu ñu demee bay wax lu ñaaw kon kooku doon tur communicateur communicateur yëpp à travers le président Modou Ndiaye Diop à travers le na sa Naar Fall euh, euh, naa saw ku mu ci mënti doon Bassirou ku mu ci mënti doon ñun ñëpp takku nañu ci derrière le président Idriss waaye ànd ak le président Macky Sall waaye nag doomi Alaaji Malick Kan Sarr ji Habib Kane ñu delloo ko njukkal baax a baax nit ku gore la nit ku yiw la ak Mouride Ndiaye kon tey jaal fi ñu toll ci kanam tuuti la mm. ci kanam tuuti ñu bàcc bàcceel ci kanam tuuti rendez-vous laa leen jox bàcc bàccaat rek waaw damay campagne boycotté waa réew mi du lu gagné Médina Fall ndax lan moo ko waral mooy dama fi amoon sama yaay ju naan Adja kan lu nekk mu daj ko ci Médina Fall ginnaaw yàlla sama mouvement moo tax mu arrêté ko ci politique te man ma xam-xam ne man social laay dund ci koñ bi bañ na ko corona bi deux millions cinq cent laa décaissé jënd ko ceeb ak dëwlin ko waa koñ bi kon nag man samay wax nañ ko déglu ma ne maire Niania kan bu fekkee dugalu ko ci liste député yi école Mame Cheikh Ibrahima Fall ko gagné ren campagne ñu ma dem ma dem ma porte à porte dem ma fenn waaye daan na def loo xam ne ci suuf man daan naa def loo xam ne ci suuf ba tey ji xamoon naa duñ gagné élection yi maa ngi sant warkat lan parce que dama xam ni que dafa am ànd boo xam ne dafa am Médina Fall te gëmuñu ko parce que mënuñu nekk fii ci élection yi bii passé waa kër Awa Touré ànd ak waa bunt bi Isaka Wade ànd ak bunt bi Gora Gueye ànd ak bunt bi élection législative yi ñu xeex ñu ban parti comme na gëmuñu ko ñun noonu am na suñu fulay bopp ñaan ñu doo xiiroo bu ñu demee ba ànd xam na ni intérêt tax ñu ànd ñu nag ay ndaw lañu ëllëg min na fa suñu loxo lay yëgee comme nag suñu loxo lay mujjee moo tax nag ñu àndandoo voté consigne pour ñu gagné yow yu askan wi loolu leen gëm li liñ bëgg liñ bëgg mooy li askan wi bëgg mooy yi nga xam dund gi seer na dëkk bi baaxatul tali yi bon na kenn essence seer na lépp mënuñu am dara ñun jaaykat kafe yi dañuy jaay bay bëgg a dee mënuñu am dara mënuñu am dara eh nakaas ah? mbégte mbég mbég rek ñun ñëpp a bég fii kanam koo xool xam da nga gis mbégte si moom ñëpp a bég ndax Yewwi Askan Wi jërë ngeen jëf dañoo engagé lu tax boo dégg ñu dañoo engagé ñu ñu dañoo ànd ak Yewwi ci lu dara joxuñu ñu fayuñu ñu yëgaluñu ci cadre ñu fay ay junni dañoo engagé ñu suñu bopp di doxal suñu bopp muy taw ñu nekk ci naaj muy taw ñu nekk ci taw bi di xuus di xuus muy taw yuy taw si suñu kaw ñuy campagne ah gudd gi tey du yomb xam nga tax du yomb ba mu neex ñu jëmbal yëngal ba mu neex ñu dañoo engagé kenn fay yuy doomu ndey benn ñoo àndaat ñoo doon benn Sénégal ndam li génnu fenn fu du Sénégal dong la yem léegi li ñu ñaan yàlla buñ fi teg nga fas liggéey askan gi bëgg askan mi nag kenn mënu leen liggéeyloo benn bi si topp maanaam kinaara wala booy si booy saam ay bëy foo am benn bëy bu rëcc te bëy bëy bu rëcc nag foo moo dem yóbbu moroom ya sonko bu ko yàlla defee ba gañee askan wi nag si ginnaaw ma xam ñoo ko wootee na bàyyi xel si ginnaaw yaa may dégg déglu ma xam nga nan nga bàyyi xel am na jamono ñu ñuy naan maanaam a seer na dund seer na mais nan fàttaliku yi loolu lañ loolu ndogal suñu borom la suñu borom moo ñu ko teg ndax boo xoolee jamono yi génn ndax dëgg yàlla Mbacke boo xoolee njit yow da ngaa war a liggéey njit fekk la sax nga mën a jàppale si côté mais état mu ne defar lépp lan waxante dëgg mais vraiment Macky Sall liggéey na neexut dëgg nag. yow xanaa bennoo nga bennoo de man Sonko laa. billaay walaay sama carte ngi nii Sonko laa mais Macky liggéey na Macky Sall liggéey na loolu nag nan ko mën a bàyyi waaye adduna gi li si kanam nag réew la benn nag à nag lay doon. génn instant bii trois jours ndox bu ndox doon tax suñ un jour bu tawee ndox mi dem kooku dañoo liggéey ñun loolu moo ñu may li ñu am ñu tey waaw ah kontaan dañ ñu ngi sabar gi fële la koy mille neuf ñoo leen mille neuf teere fa sabar ngan lañ fe may nii ñoo leen dañuy sabar léegi nii ñoo leen incha allah diñ ko baax mu sedd doomu ndey dañu àndaat ñoo doon la yem léegi li ñu ñaan yàlla kuñ fi teg nga fas yéene liggéeyal askan gi bëgg askan mi nag kenn mën na leen liggéeyloo benn bi si topp maanaam inaara wala booy si bay saam ay bëy foo am benn bëy bu rëcc te béy béy bu rëcc nag faa moo dem yóbbu moroom ya sonko bu ko yàlla defee gañee askan wi nag si ginnaaw xam ñoo ko wootee na bàyyi xel si ginnaaw yaa may dégg déglu ma xam nga nan ga bàyyi xel am na jamono ñu ñooy naan maanaam meew a na dund bi seer na mais nan fàttali ko loolu ba doon dogal suñu borom la suñu borom moo ñu ko teg ndax boo xoolee jamono yi génn ndax dëgg yàlla maximum boo xoolee njiit yow da ngaa war a liggéey njiit fekk la sa sax a jàppale si côté mais état mu ne defar lépp nan waxante dëgg mais maa Macky Sall liggéey na neexut a dëgg nag. yow xanaa bennoo nga Sonko laa. billaay wala sama carte ngi nii Sonko la mais Macky Sall liggéey na Macky liggéey na loolu nag nan ko mën a bàyyi waaye adduna gi li si kanam nag roolu benn nag à suivre nag lay doon. li yi ñu ngi ñëw ku ci nekk di nga ñëw constater les résultats par par par moo taxit ñoom joxe nañ dig daje fële ne ci kanam pour mën faa def tàndibeer les les les éléments de yeewee askan bi vraiment boo gisee sa xar kanam di nga gis ni gis nañ ci mbégte bu baax a baax a baax aussi tamit ñuy am surprise bu baax a baax ci euh, Benno Bokk Yaakaar ndax ci biir centre bi investir nañ fi ñaari personnes yoo xamante ni ñi ngi dëkk biir Médina Fall mais terewul yeewee askan bi gagné na leen dominé leen dóor na leen largement largement kon bu ngeen dee xool réaction yaa ngi noonu ñu ngi nii ba léegi ci buntu. extraordinaire franchement fii moom amuñu leen lu ñu wax moo ko doon mboq la ngeen di wax population ci population bi nafaal bi parce que dañoo def élection locale ñun ñu gagné ñoom ñu ni gagné bi parce que ñoom dañoo tasoon c'est-à-dire buntu bi euh, Ablaye Dieng ñaaña aw dugg dañoo tasoon quoi moo tax ñu gagné leen mais bii dañoo booloo yàlla def nag bañ bàyyi booloo ñoom ñëpp ñu dóor leen dóor yoo xam ne bii moo gën a garaaw école bi moo gën a gànd donc kontaan nañ trop di remercier population bi nafaal lii de prouver maturité bi population bi am que ni léegi politicien mootu ñoo nax da ngay def ñu gis ñu voté la boo deful duñ la voté loolu rek la man loolu man lecture boobu laa am ci résultat yi quoi. bon suivi bi on va na à travailler avec Yewwi Askan bi parce que wax dëgg yàlla ko waxal yàlla maire bi fi nekk di su lay jóg ñun boo xoolee suñu koñ bee def nañ presque 12 ans yoo xam ne benn taw lay taw ndox mi na fa nekk presque un mois du dem wax dëgg yàlla bi mu fi ñëwee cinq ans mois la fi def bi mu fi ñëwee taw bi mu ñëwee dañoo moom moo ñu woo au lieu que ñun ñu woo ko c'est l'inverse moom moo ñu woo laaj situation bi mu demee ñu wax ko moo indi disposition yëpp wax dëgg yàlla fee boo fa demee ndox amatu fa loolu rek day wane preuve boo xam ne engagement bi mu am si jàppale koñ bi et tout loolu moo tax aussi ñun ñu fay ko lii wax dëgg yàlla ñu kontaan ñun ñëpp di remercier population bi Ndefleng encore une fois jërëjëf merci